xam nga man damay bëgg ñuy bàyyi xel di analyser mbir yi teg ko ci xel mu sell bokkul ci màndu tey wax na nga bëgg nit ki rek lu mu def nga ne baax na waaye bokkul ci màndu tey wax nga ne nit ki neexu la lu mu def baaxu da bëgguñu xam danger salafiste ci senegal ak fu tasawuf am doole yoonu Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasulillahi ni mu neexee ndax yoon la woo xam ne bépp fakkastal ak pakk ak dëj bu war a nekk sa kanam sëñ Bamba dëgg na ko yemul ci dëgg ko bi mu ko dëggee ba jàll Cheikh Ibrahima Fall leem na ko yóbbu Mbacke Balla ngor gi musta jeex am di Moustapha mu baax mi ñëw defar sëñ Fallu ñëw defar sëñ Abdoulaye ñëw defar sëñ Abdou Khadir ñëw defar sëriñ Saliou ñëw defar sëriñ Bara ñëw defar sëriñ Sidi Moxtaar ñëw defar ba sëñ Muntaxaat mu ngi nii di defar ngir yoon bi gën a naat ak gën a rafet parce que yoonu murit <laughs> ilal minallaahi la ilallaahi <laughs> waaye koo xam ne say maam ci Cheikh Ahmadou Bamba la ñu jébbalu nga juddu ñu tuddee la sëriñ basiiru Mbàkke doomam ju tudd sëriñ Fàllu Mbàkke uuf la wat la tuddee la baayam récépissé bi nga demee élection nii Mbàkke la sant sëtu sëriñ Basiru moo ko moom du bu Pastef salafiste ñëw mën laa tourner tegee la benn place ak benn boor ba bi nga génnee kaso demoo Touba nuyoo jox leen cër jéggalu massawu gërëm sàkku ndigal sàkku ñaan defoo loolu da génn kaso rek dem sa kër dem point de presse amadu Ba mi mag ñi yar te mu bëgg mag ñi moom bi ko Macky falee daf ne du ma yëkkati benn kàddu lu mooy ma dem suma kilifa sàkku ñaan sàkku ndigal jox ko suma nopp mu digal ma lépp lu ma tere ma ba ko gis nga salafiste boobu nekk ci jomaay ba tax mu doon moomeelu Serigne Touba te bañ ko moo def bépp chrétien bu nekk ci réew mi en danger wax den koy wax mu dëju néew ma islam ak chrétien loolu mënta nekk ndax jël ak islam yàgg na fi. chrétiens yàgg nañ ci réew mi mosu ñu problème ak tijaan yi nii xaadar yi nii laayeen yi parce que dañu bokk xam ne benn yàlla la ñu bokk mais bi salafiste duggee la chrétien commencé tuuti Sénégal la preuve année bu jot ñu ne 94 pour cent musulman ñoom 6 ma ne leen xanaa ñoom duñ jur te kenn ku ci nekk am na xaritu chrétien salafiste yooyu ñoo ñëw ba taxaw bu yàggul artiste bi dee ñu ne bu ko kenn ñaanal man mii su wax ji lu tax ñu gënoon maa mere mooy li ma ci tudd chrétien rek programme bi chrétiens yi bokkuñ ci seen njiiti chrétiens yi bokkuñ ci bedd bi ñu leen bedd sànni leen lu tiitlu la lu raglu la waaye lu mat a bàyyi xel la moo tax may woo chrétien réew mi ñu xam ne Sénégal du pour jullit ñi du pour chrétiens yi Sénégal c'est pour le Sénégal et pour le Sénégalais pour Sénégal rek la ak sénégalais yi waaye nag képp koo xam ne sa campagne gisuñ ci sa bopp joxoo cër suñuy kilifa faale woo leen lislaam bi nga bokk sax lépp luy saaga kilifa diine lislaam yi ci nga bokk ñun duñ la wóolu mukk pour jox la suñu vote ndax suñ sécurité bi ñu nekkee suñu dal di muñ lu bari xam nga chrétien li ñuy muñ ci diggante ñoom ak ñun julliti suñ ko waxoon réew mi yàqu mais ñoom tànn ne noppi rek ak yaru ak dal lu waay def ñu ne baax na léeg-léeg sa nit nekkoon chrétien dugg ci lislaam ñu koy jubile loolu du sunna mais doo xalaat sax loolu mën na blesser sentiment wu chrétien bi sa yoon nekku ci bu nit jógee ci chrétien dugg ci lislaam ñu ne ko ku baax nga waaye bu nit génne woon chrétien te dugg ci lislaam ñu ne ko xéeféer nga di ko saaga ak xas lu ne luy ñu wax ko lii lépp mu ngi metti chrétiens ak yeneen yoo xam ne su ma ko waxee tey ñu ne naa fekk la te dafa am dëgg la ci réew mi moo tax nag dama bëgg ngeen mobiliser takku xam seen bopp xam seen cër ci réew mi mosu leen fee tuuti. sénégalais bu demee ba mën a bind alxuraan en français chrétien ko jàng Léopold Sédar Senghor mi njëkk a nekk président c'est chrétien la président chrétien la Abdou jabaram chrétien la te ñoo ko jàngal Abdoulaye Wade même chose kon histoire u Sénégal mënuñ koo tudd te bokk leen ci te ñi njëkk a négocier ci turu nit ku ñuul chrétien yi la man nag parce que jullit laa du tax ma tuuti leen suñu pas-pas du benn mais respecté naa seen pas-pas comme ni ngeen respecté suma bos éferloowu ma leen yóbbuwuma leen aljanna te dama gëm nañoo bokk Sénégal te liy tabax Sénégal basé wul ci foi ndax gis ngeen jullit bu toog or ba ngoon di fen te fen dafa xaram rawatina weeru koor kon daal chrétien Sénégal ñi nekk ci diaspora beeg fépp gis naa ni ngeen takkoo jox seen kàddu amadu Ba parce que programme am da cee bokk te dafa jiital kilifa yi te tàggoo na ndigal comme ni tàggoo jullit ñi fayda gi nekk ci yéen ne ku bëgg seen njiit ngeen bëgg ko ku yëg seen njiit ngeen yëg ko loolu yàgg na ci yéen kon gàcce ngalaama chrétien Sénégal ñoom ñëpp nee neen wii Ba